ca bàkk ba jip na générique ba départ na jàngat lamb tàmbali na mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fu waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew tey safa wasaare lamb baay ji mu ngi lay nuyu di la siyaar di la màggal mbokk yi ñu di leen di jaajëfal bu baax a baax ci ànd bu rafet bi nga xamante ni yéen a koy ànd ak wasaare lamb euh, mbokk yi démb dafa nekkoon journée boo xamante ni journée bu spéciale la ci wàllu lamb moo nekkoon dimanche 12 juin 2022 suñu papa Manga 2 moo ñu woon fële ci stade Jom Iba bi mu tegal xale yi cinq million litre traditionnel ndeysaan gis nañ xale yu bari wàcc si nañ gis nañ fa ay jàmbaar gis nañ fa ay garmi gis nañ fa ay xale yoo xamante ni wanewaat nañ seen bopp ci wàllu làmb gis naa fa xale yoo xamante ni dama leen doon gis ci bëre door ñëw nañ wane seen bopp ku lim doo jum da dul matal gis naa fa Petit fi euh, gis naa fa Boy Sil gis naa fa Jacob Balde gis naa fa ma Mandiaye numéro 2 te ñi may tudd nii ñëpp ay mbër lañ yoo xamante ne dañ leen a ràññee ci wàllu bëri dóor ay xale yoo xamante ne gis naa fa ku mel ni Kaaw Gourdin mu nekk fa moom it wane boppam gis naa ku mel ni Albarka Kayre ñu ay xale lañ yoo xamante ni bëri dóor bi saa su ne ñu ngi fa di wane seen bopp di leen encourager bu baax di leen wax ni làmb noonu la ñëw leen ngeen gën a wane waat seen bopp ci làmb mbokk yi dañuy dugg ci biir wan leen ambiance bi jot a xew stadium Iba Mar li traditionnel bi wan lépp loo xamante ne jot na fa xew ci làmb su ko defee mbokk yi ñu dellu si waat plateau bi ay ci ñu dem. mais tey laa mujj risque ay petit loo laa fi gis ay petit loo ay petit loo laa fi ay Baye Ma Ndiaye numéro 2 jëriñ nga ne Massamba tey laa mujj risque na. <laughs> Adama ma dugg ndeysaan ma nga noonu moom Ada Boy Baol laa ilaaha illallah mbaar mbaar bi dugg si na ba yëngu na caayu na eh. ndeysaan mama bi booy fay di dugg si ci la Serigne Ndiaye doo dugg si awaay <laughs> compétition bi tey du wallaay mënul yomb xale yi dugg si nañ ndeysaan ma ngay sotteeku nee na rendi nee na damay rendi Boucar Ndour Kor Mamba Serigne na sama yére <laughs> ilaha illallah ndeysaan eh Doudou Sané Diof yor joxañ na Serigne Ndiaye ma nga yëngu ah Doudou Sané El Hadj Birame Ndiaye Sidi Sembène El Hadj Birame Ndiaye wala woon ginnaaw Sidi Sembène de Dakar lool yi loolu raw gàddu gi El Hadj Birame Ndiaye Sidi Sembène ndeysaan Doudou Sané ngi noonu di doxali ndeysaan raw gàddu gi El Hadj Birame Ndiaye Sidi Sembène El Hadj Birame Ndiaye reculé na Sidi Sembène sol na ko mbot yegg na suuf daan na ko Sidi Sembène daan na El Hadj Birame Ndiaye jël bu rëy Sidi Sembène Sidi Sembène jël na na raw gàdd El Hadj Birame Ndiaye daa am na jël bu ko bet lamba gi waaw waaw yaakaar naa ni Yéni Junior ak Gandia Fama ah dinañ bëre de wax bi baale sa baas Dior moo la woon ginnaaw moom Gandia Fama Tony Bairo jëli ko Gandia Fama dajale na ko Tony bañ Tony mbokk yi gis ngeen li jot a xew ci final bi dox ci diggante El Biram njaay ak Sini Sembène mbokk Sini Sembène daa la ci làmb El biram Birame Ndiaye naanaan la ci làmb mais Siny Sembène mu ngi wane boppam ci li traditionnel gis ngeen ko drapeau chef fa l'État ci Diourbel ma nga fa woon ñëwoon fan di compétir moom naanaan la macha allah ñu koy félicité bu baax ci ndam lu rëy li nga xamante ni am na ko mbokk yi beneen final bi doxoon ci diggante Tony Junior ak xale bii di Gandia Fama bëre nañ wuure ci bëre ba Tony Junior daan xale bi di Gandia noonu la ndax dañoo bokk daje ñoom ñaar drapeau chef de l'État fële ba Kaolack organisé woon Gandia Fama daan ko daan ko ñu bëriwaat nañ ay yoon yoon yoon démb bëri nañu Tony daan Gandia Fama Fama noonu la làmb noonu la lutte traditionnelle bi dee leen ci ñëw di compétir parce que ay compéti euh, ay compétiteur ngeen vraiment ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax mbokk yi dañuy dem ci final bi nga xamante ni saa yu xewee ci stade Jom Iba Mar gars yi na Barça la ak Real Barça la ak Ibrahima balaa may ñëw ci final boobu dañuy dem ci combat bi nga xamante ni Doudou Sané bëri na ci ak kii di booy fay dañuy ñëw ci combat bi nga xamante ni euh, kii di Mamady Ndiaye bëri na ci ak tas yaakaar su ko defee mbokk yi ñu ñëwal leen wan leen làmb ji joxe ci suñu xalaat parce que yaakaar naa ne làmb ji ñun ñëpp ñoo ko bokk ay ca ñu dem stade Diop Iba Mar après ñu ñëw ci grand kombaa bi. jàppante nañ Doudou Sané Boy Faye génnaat nañu Boy Faye Boy Faye ak Doudou Sané ñu ngi ci compétition bi ba tey Boy Faye Doudou Sané Boy Faye Doudou Sané Khalil ni nga def sànq baax na de foofu baax na Boy Faye Doudou Sané ginnaaw mbëri dañoo sorante bu action di am rek ñu daw ci genn ki xool kan mooy daan daw na jëli ko daw na jëli ko ngañ seen jël na Doudou na Boy ngañ seen jël na Serigne Ndiaye ngañ seen jël na Serigne Ndiaye ci cimikaayam ngañ seen Serigne Ndiaye lu nar a xew Serigne Ndiaye da génnee Serigne Ndiaye da a génnee Ngagne Sène Serigne Ndiaye Ngagne Sène génn na ndeysaan ndeysaan ndeysaan Ngagne Sène Serigne Ndiaye amateur nañ temps jeex na ndeysaan Boy Faye Boy Faye ngàdd na ko Doudou Sané yóbbu na ko pakete na ko bañ na Boy Faye bañ na Boy Faye bañ na Doudou yombul Boy Faye Doudou Sané war ndombo Doudou Sané war na ndomba Boy Faye Doudou Sané Boy Faye lu xew Boy Faye Doudou Sané Boy Faye Boy Faye Doudou Sané Boy Faye Doudou Sané Boy Faye Doudou Sané Boy Faye daan na ko Boy Faye daan na Doudou Sané Boy Faye daan na Doudou Sané Boy Faye daan na Doudou Sané waaw waa booy booy fay daan na Doudou Sané mais bañ nañ ndeysaan am na lu ñu réclamé ndeysaan am na lu ñu réclamé Baye Ndiaye Serigne Ndiaye Ablaye Ndiaye bañ na Serigne Ndiaye Ablaye Ndiaye Serigne Ndiaye Ablaye Ndiaye ñu ngi ci combat bi Doudou Sané Modou Pouye Doudou Sané Serigne Ndiaye fàqat Serigne na Ablaye Ndiaye Serigne na ko jëli na daan na Ablaye Ndiaye dee daan na Ablaye Ndiaye Modou Pouye jël na naa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 lu xew lu xew lu xew Mamadou Ndiaye waaw waaw waaw non problème am na problème am na problème am na amateur yi ànduñu ci amateur yi ci amateurs yi ànd ñu ci. action am ñu victoire tas yaakaar dugal recours dem membre de jury bi consulté wu seen gis ne tas yaakaar daanuwul ñu ñëw leen dañuy bëriwaat ñu ngi noonu di bëriwaat combat bi. Mamady jàpp na ñu ngay bëree Mamady Ndiaye. plaqué na ko Tass bañ na Mamadou Ndiaye Tass ndeysaan ñu ngi noonu jàpp na ko jàpp na ko wet wër na ko ndomba Tass Yakar wër na ndomba Mamadou Ndiaye waaye def nga ko lu daan na ko daan daan na Mamadou Ndiaye Tass Yakar daan na Mamadou Ndiaye mbokk yi gis ngeen combat bi dox ci diggante tas yaakaar ak Mamady Ndiaye tas yaakaar xale la yaakaar naa Mamady Ndiaye naar naan la ci làmb arbitre di nañ leen xoolaat seen taxawaay ndax dóorante am na ci ci diggante boobu ci diggante tas yaakaar ak Mamady Ndiaye am na ngàdd yoo xam ne du ngàdd dóorante la te dóorante ngàdd dañ ko war a interdit sax ci làmb rawatina li traditionnel dañu war a interdit ngàdd ndax xale yi dañ ciy profité di ci doorante te doorante yooyu baaxul tas yaakaar Mamadou Ndiaye njëkk na ko dóor ñu génn saako yi mu wax ko arbitre bi arbitre bi waxul dara te arbitre bi moment boobu dafa waroon avertir kii di Mamadou Ndiaye parce que dafa dóor tas yaakaar ñu ñëwaat ci digg géew bi Mamadou Ndiaye tas yaakaar fay dóor ko moom it bi dal na ba ñëpp xam ni dóor bi dal na ba tey arbitre bi avertirul kii di tas yaakaar te loolu bokkul ci luy defar làmb Mamady Ndiaye sit am na ci action bu njëkk bi arbitre di jox ndam kii di Mamady Ndiaye ñu dem tas yaakaar bind recours ndax yaakaar naa ni tas yaakaar bi mu ñëwee taxaw nee na dafa bëgg bind recours mais dix mille francs la yor ci xaalis te recours bi vingt cinq mille la loolu nag jot na ci texte CNG yi ñu xoolaat ko bu baax parce que xale yi ñëw ci lutte traditionnelle bi yaakaaruma ni bu ñu ñëwee des fois dinañ yor juróomi junni yu ñu mën a di bindee recours benn waay moo wàccee ci tirbine ba génnee quinze mille francs jox tas yaakaar parce que waa ji xam na ni tas yaakaar daanuwut xam na ni tas daanuwut te ñu ci bari ci làmb ji xamoon nañ ni bu tas yaakaar dugalee recours dans les normes dañ ko waroon jox victoire parce que action boobu ku waxal yàlla xam ni tas yaakaar ndax compéti compétition la Mamady Ndiaye daa ñëw pour compétir ndaanaan la ci làmb Mamady Ndiaye bokku na ci mbër yi gën a sportif ci lutte traditionnelle bu daanoo day jóg fëggatu dem yoonam mais bu daanoo dañu war a xam ni Mamady Ndiaye daanu na loolu baaxul parce que day day day day tax xale yi mu leen di jural leneen tas yaakaar bind recours ñëw ñu woowaat leen pour ñu bëre ñu bërewaat mu daan Mamady Ndiaye Mamady Ndiaye bëgg a bind recours ñu bari ci moom ñu ànd ak moom na ko ah jarul ngay bind ndax xale bi daan na la mu nangu. mbokk yi loolu moo xew ci diggante Doudou saane ak booy fay bëri nañ ñoom ñaar wuuree ci bëre action am sit am yéen a ma gën a gis action bi nu mu demee mais action boobu pour man bu fekkee Doudou Sané dafa bind recours arbitre yi li ñu waroon def mooy woowaat booy fay ak Doudou saane ñu bërewaat. ndax action bi ci am ñu ne Siteu la jaroon na ñoom ñaan ñu bëriwaat parce que foofu yaakaar naa ni boobu bu ñu xoolee rek bu dee sit am na bu ñu demee ba ay xel di jiixi jaaxa ñii naan daanu na ñii daanuwul kon jiixi jaaxa am na mais ñuy félicité bu baax booy fay nit ku sportif la ñëw na ci ta table bi wax ak ñi nga xamante ne ñooy arbitre daanu ma sa waay dama ko daan affaire yooyu mais bi ñu ne ko règlement bi daaneel na la dafa nangu jël ay yéreem dem mbokk yi noonu la ñuy def dem ci final bi nga xamante ni wax naa leen ko sànq Barça Real la dox ci diggante Serigne Ndiaye 2 ak Doudou Sané depuis drapeau chef de l'état ñu ñu war a bëree trois fois Serigne Ndiaye 2 daan ko par individuel daan ko ci open bi équipe bi Serigne Ndiaye 2 ñëwul ndax équipe ba gañe na mu ne dafa blessé blessure boobu moo ko permettre bëriwul ak Doudou Sané ñu jox victoire bi Doudou Sané depuis blessure boobu ba tey Serigne Ndiaye 2 bërki démb lay doog génn ci compétition yi te bi mu génnee moo ko jël démb la ñëwaat stade Iba Mar kon maanaam samedi bi Serigne Ndiaye dë moo ko jël dimanche bi Serigne Ndiaye 2 ñëwaat ci compétition bi nañ leen xool Serigne Ndiaye 2 ak Doudou Sané fan la ñu mujj ci compétition bi bu ko defee ñu dellu siwaat ci plateau bi ay ca ñu dem baax na. mbokk yi arbitre bee ngi wax ak ñaari mbëri ci final bi dox ci diggante Serigne Ndiaye 2 ak Doudou Sané fii ci stade Iba Mar journée Mango production 5 millions arca bi sifflé na mbokk yi dimanche 12 juin 2022 Doudou Sané Serigne daw na jëli ko jàppante nañu Doudou Sané ña ngay bëree combat bi du yomb amateur yi jug nañ taxaw mbokk yi il est vingt deux heures douze minutes Dourou Sané Serigne Ndiaye de Serigne Ndiaye féetale càmmoñ Dourou Sané féetale ndijoor Serigne daw na jëli ko Dourou Sané bañ na ña ngay bëree arbitre bi na bëre leen bëre leen du yomb ñoom ñaar Dourou Sané dóor na ko tànk léegi pàdd ko Serigne Ndiaye répondre daw song ñu ànd bërewaat def action tàqale ko waat ku ne di déglu sa morom Serigne Ndiaye daw na jëli ko daan na ko Serigne Ndiaye dee daan daan na Doudou Sané Serigne Ndiaye yamul Serigne Ndiaye dee daan na Doudou Sané Ibrahima Serigne Ndiaye dee daan na Doudou Sané demal yi gis ngeen combat bi doxoon ci diggante finaal bi Doudou Sané ak Serigne Ndiaye 2 daan Doudou Sané jël bu amul benn werante bëreeg moom ci biir bëre ñu wure mu daan ko waaye bi mu ko daanee Doudou Sané dafa bañ ndax dafa contacté ne Serigne Ndiaye 2 dafa jàpp ci karaw gi xëcc ko mu ñëw te effectivement noonu la demee Serigne Ndiaye de dafa jàpp ci karaw Doudou Sané bi xëcc ko mu ñëw mu daw ko plaqué ko mu daan man nag dama xamul parce que yàgg naa ko gis ci bëre mbër mu am ay rasta wala mbër mu am karaw adversaire bi jàpp ci karaw gi di ko dóor ay uppercut waaw boo xoolee xale bii di Badou Fall bu nekk écurie euh, Thiaroye Géej bëre na fekk George Bush George Bush ci karaw gi la jàpp di ko dóor foofu arène nationale. di ko dóor di ko dóor di ko dóor ba yaakaar naa ne ba du faal keroog recevoir na coup yu baree baree bare waaye ba ñu demee ci Serigne Ndiaye de laaj ko karaw Doudou Sané bi mu jàpp Serigne Ndiaye de dafa mel ni weddiwul karaw gi waaye lii la wax nañ leen dem ci Serigne Ndiaye de. du nuyu ñëpp. xam nga di sant ñëpp. du sale champion mbër la quoi. mbër ñoo xam nga a waaw est-ce que lu wax. Serigne bi ndax nee na da nga koo jàpp ci karaw bopp ba daan waaye karaw la la la bokk anam bëri ngeen karaw nootu karaw karaw bi li da ngay nangu exclusivement da ngay nangu il da exclusif moom mi nekk exclusif xam ne man ñu ko yàlla dafa may bëre yàlla dafa may ay mokk waxuma bu dara nag mais rek exclusif ko bàyyi mën a moom. xam nga dara dara moo am bis yàlla dogal may daan ba si man kenn suñu dara daf may daan. mais suñu borom moo doxalul loolu na na na nekk exécutif depuis drapeau de l'état bi démb moo nekkoon sa sorte bu njëkk yaa ko jël tay nga jëlaat ko lan la sam yàlla bi sam yàlla saa ko root bu mu laal sam yàlla bi samay entraîneur samay entraîneur baax a baax kante bañaa wala bari bëri mas xam nga di nuyu di nuyu ñëpp waa Medina sama lay àndal dañ fay ko wax gars dañu sonn gis ngeen ko mbokk yi loolu la Serigne Ndiaye de wax mu nekk loo xamante ne vraiment nañ leen xoolaat ba xam règlement bi permettre na ko ko waaw wala déet bu ëllëgee beneen compétition am ñu kii at duudu mbër du yar karaw karaw bu bari baaxul ci mbër ndax chaque fois mbër yi da ngay gis ñuy wat seen karaw ndax seen adversaire yi dañ ciy jàpp. dañ ciy jàpp loolu nag ñaax la parce que Serigne Ndiaye de jàpp na ci sa karaw gi bëreeg yow daan la te ba ma ko laajee def na karaw ci nit la bokk dëgg la ci nit la bokk règlement bi xamuñu ba xam wax na kom déet mais ñu ngi lay encourager bu baax di la wax ni làmb la yéen ñëpp du ngeen ay noon da ngeen ñëw ngir compétir rek ku ci nekk di wane njàmbaaram ak ci wàllu làmb ñu leen encourage ñu lay encourager bu baax di félicité Serigne Ndiaye 2 mbokk yi bàyyi leen ko xel ci làmb Serigne Ndiaye 2 dafa war a am combat ci bëre bi am na ginnaaw làmb yaakaar na ko te am na fu mu teg làmb Serigne Ndiaye 2 du caaxaane làmb du foowee làmb mbokk yi noonu la ñuy def rek baresti ko fi nga xamante ni mooy arène nationale ca samedi boobu ca dimanche boobu làmb amoon na fa grand combat bi doxoon ci diggante fourrière ak xale bi nga xamante ni vraiment mooy armée bu ngéwal bari na ay ambiance yu fa xew ak lépp loo xamante ne xew na fa mbokk yi dañuy balastiku dem wan leen lépp lu fa jot a xew ci ambiance ci làmb ci cosaan bu ko defee ñu dellu saat plateau bi ay ca ñu dem Renou Gouye Ambroise mbokk yi Ambroise moo ñëwoon ginnaaw. Ambroise a dóor Ambroise a dóor mbaa du ko dóor mu daanu mbaa du ko dóor mu daanu Renou Gouye Ambroise bàyyi wàlla takk na lu mu koy def Ambroise ko yenu da koy lay lay la la oh Ambroise a nga Ambroise yenu ba ca kaw dóor na ko ci noonu ci digg géew wi Kouthia boîte vocale boîte vocale door na léegi teep <laughs> Kouthia boîte vocale jaxabal na ko boîte vocale mi naanaan la lu mu koy def da koy daan waaw waaw da koy daan boîte vocale dugal na Kouthia boîte vocale mu ne ko vous avez éteint la boîte vocale yu ñaari xale yaa ngi ci digg géew doomu jàmm gën a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 ak fils de Sadio bëri nañ ci biir bëri ñoom ñaar ay ndaanaan lañ wure nañ ci bëri combat spécial bi nekk na combat boo xamante ne xale yi wane waat nañ seen bopp bëri nañ wure nañ ci bëre Sa Thiès daan na fils de Sadio loolu làmb la fils de Sadio gën a la defarwaat entraîné waat ñëwaat ci làmb ji yokkal maas bi yokk volume bi bëri ngeen yee ñaar waaye yaakaar naa doole Sa Thiès daf laa xaw a sàcc doole tuuti boo bëggee yegg fi say mbër moroomi mbër yegg faw nga yokk doole bi faw nga yokk état bi faw nga gën a yokkaat li nga xamante ne mooy sa xam-xam ci wàllu làmb ñuy félicité bu baax Sa Thiès ndam lu rëy li mu am mbokk yi di leen jaajëfal bu baax di leen wax ni ñu ngi jëm ci grand combat bi dox ci diggante Fourrière xale bi di Armé bu Ngéwël Mbéwane production ay ca ñu dem arbitre bi laaj na laaj na Fourier pare na arbitre na mbokk yi grand combat baa ngi noonu Fourier am na ngeen il est 19h52 Fourier bi mu fi mujj digganteem ak Baye Mandione Junior la woon bu ngeen bi mu fi mujj digganteem ak Hercule la woon arbitre bu ngeen bi mu fi mujj ndam la fi jëlee. Fourrière bi mu fiy jógee. tegante nañ bopp dañoo bëgg a xeex. Fourrière door touché na ko. Fourrière er, waaw. Fourrière er, ni mu arrêté combat bi baax na. Abou Nguel doo ko door tuuraat waaye dalul. Fourrière er, arrière bu Nguel. moo ko bëgg da koo bëgg a door. Fourrière armé bu Nguel. Fourrière a ngay déplacé wu. Fourrière armé bu Nguel jàpp nañ jàppante nañ. Abou Nguel ngay door. Fourier armée bu Ngéwél abi toogal jàppante nañu Fourier armée bu Ngéwél armée bu Ngéwél armée bu Ngéwél Monko lu mu ko bëgg a def armée bu Ngéwél lu mu ko bëgg def taf na ko xamoo da ko bëgg a zongo yow na ko taxabal bi ndànk da daanu di bëyal bëyal bëyal Fourier da ngaa teel a bàyyi Fourrière da ngaa teel a bàyyi Fourrière a kii ñuy jaajëfal bu baax Mbewane production di jaajëfal képp koo xamante ni vraiment jàpp nga ci événement bi ngir mu réussir ñu ngi leen di jaajëfal. di féliciter armée bu ngéwal di encourager Fourrière Fourrière vraiment tegle na trois défaites yoo xamante ni mënoon na ñàkk ci làmb Fourrière tegle na ñetti defet yoo xam ni mënoon na ñàkk ci làmb ginnaaw ba mu bëreeg Bébé Diène daan ko mu bëreeg Baye Mandione Junior Baye Mandione Junior daan ko démb mu bëriwaat ak armée bu ngéwal mbokk yi armée bu ngéwal daan ko xool atal bu baax say adversaire yi ngay jël ci làmp ñi ngay jël ñëpp dañ laa sàcc doole am nga xarañta bëre bi mën nga bëre naam mais ñi ngay jël dañ laa sàcc doole ñuy félicité bu baax a baax a baax armée bu ngéwal mbokk yi ñu am rek benn jàngat bu ñu ci def benn seetlu muy dafa am benn action bu am sit bu njëkk a am site boobu arbitre yi nañu bàyyi action bi mu continuer action bi continuer na armée bu ngéwal daan na Fourrière ndax dañu dañu bëree ñoom ñaar ci biir wuure ñu ñu bëree def action ñëw ba ci saako yi armée bu ngéwal rëpp bi mu rëppee moo Fourrière Fourrière dafa jàpp ni armée bu ngéwal def na quatre appui te alors que loxo droite bi mu ci ci bu Fourrière bi dañul benn yoon Fourrière bàyyeeti ko euh, armée continue action bi daan ko ci diggante saako yi foofu sit am daan na ko armée dina xëy na bëgg lu leer wala bëgg lu kii moo tax ñu defar ko mais même bu armée bu ngéwal daanu taatoon Fourrière daan ko bu dugalee recours day am ndam ndax victoire boobu foofu dañ fay confirmer li nga xamante ne mooy jël am na ndax boo xoolee suñu papa Moustapha Gueye bëreem ak Lac de Guiers 2 nii la combat ba demee woon. Lac de dafa rëpp trois appuis Tapha Gueye yaakaar ne la de Guiers def na quatre appuis mu bàyyeeku ko Lac de Guiers action bi ba daan ko mbokk yi ñu leen di jaajëfal bu baax di leen kontaanee bu baax a baax a baax di am mbégte ak kontaante. di jaajëfal bu baax saa Touba di ko wax ni vraiment gis nañ jàppale yi muy jàppale xale yi ndax li mu wax rek mooy kàddu gor ñaari xale yi dox diggante fourrière ak armée bu ngéwal ñoom ñaar ñëpp ay doomam lañ te ku ci nekk bi mu ñëwee nee na la yéen ñaar ñëpp samay doom ngeen samay ñaari doom bu ñuy bëree dama ciy neutre waaye duma ci ñaanal kenn.